asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuy naa leen ziyaar naa leen waa Alphie Cuisine bàyyi nañ ci jàmm ay amuse-bouche ñëwaat na waaw këy apéritif dînatoire amis bouche wala amis amis gueule sax waaw këy tey nag euh, li ñuy soxla pour euh, mën a réaliser sunu ay amuse-bouche ay feuilles de brique waaw ay amuse-bouche man tàmm naa ci croustillant somo waa dafay ñëw de ndax somo beeg fois gras bee ngi fees dale ci marché bi jëndaguma fois gras sax euh, moom ci feetu fin d'année yi laa koy laa koy réserver am na yeneen dinaa ci ñëw damay njëkk euh, defar euh, samoussa somo fromage feta bi nga xamante ni dama ko fas yéene lakk ci fuur bi sama gars yi waa léeg-léeg dañu wàññi dëwlin bi saaf bi moom saaf bi saaf bi ane penda <laughs> ma nuyuwaale Penda ba sama grande sœur nañu wàññi saaf yi Penda am na ay plateau salé waaw kay am na ay plateau salé Penda mooy borom nokkasi waaw moom ma ngay góorgóorlu moom defar yu baax waaw le temps que may yegg si sama mag ji kenn du yow <laughs> maa ngi ñëw de sama gaay yi <laughs> xam ngeen ne Alphie Cuisine bu waree jaay lekk daa war a jaay lekk ah maa ngi ñëw xaar leen ma xaar leen ma bu nee bu nee bu nee buum rek ngeen yëg ko bomb bi bu kalaatee foog ngeen yëg ko sama gaay waaw ah, kay léegi nag nañu lem sunu samoussa somo laa ci def fromage feta ak euh, tuuti raisin euh, fruits secs raisin ak fruits secs nga xamante ne dafay euh, balancer côté sucré salé bi ok pour mes suiveurs qui ne comprennent pas le wolof vous avez toujours les mêmes recettes sur la page Alphie Cuisine version française on a l'habitude de publier deux fois mais bon si vous voyez pas la vidéo ici vous pouvez la trouver sur Alphie Cuisine version française waaw kay sama gars yi deuxième samoussa bi nag ton laa def surimi euh, fromage feta daal di def tuuti persil sànd ci xorom sànd ci dé déedéet xoromuma def tuuti poobar euh, bu la neexee mën nga ci def sa soble. mi ngoog sànni ci tuuti huile d'olive parce que thon a eau la moom tamit nga tibb lu lu lu doy def ko ci samoussa ay samoussa nag taamu naa ci samoussa yu fees en ah, Kumba Diallo waaw Kumba jàllo ak euh, Mina Malek Fatou Silla Latifa Konaté Euh, Love Cook sama benn suiveur boo xamante ne moom it euh, Elexcel ci ay cuisine YouTube les recettes de Sidi waaw koñ sama waa ji Sidi ngi góorgóorlu moom it ok euh, ak Ndey Ndak Guèye moom nee na service traiteur am la yor te may professeur am daal moom daal lu mu gis ci Alphie Cuisine nag da koy def ci service traiteur donc Ndey Ndak jëlal Ndey Ndak Guèye jëlal ay samoussaawa ngook waaw koñ tool bi dafa yaatu ñëpp ci xaj sama gars yi ñëpp ci xaj waaw koñ na na lekk sell jaar yoon waaw koñ na lekk yi sell loxo yi nay set torchon yi nay set waañ nay set waaw légumes yéeg fruits yéeg légumes yi nañ koy raxas ba mu set ndawal yi yàpp beeg ginaar bi nañ koy raxas ba mu set parce que luy jëm ci biir bu xasee bu dugg amul sorti waaw waajee ko waxoon nee na biir bi moom du du comme soraanu bu duggee du mën a génn buy génn day metti dugg bi day neex trop mais génn bi dafay metti waaw kañ léegi su ko defee nag samusaay tey ci fuur bi laa koy lakk parce que du ma ko saaf comme dama ci taatine sama dëwlin ba pare duma ma ci yokkaat dëwlin waaw ñu wàññi gras bi parce que feet yi dañuy lekk trop de ak euh, xorom bu bëri ak euh, graisse bu bëri donc euh, nañ koy limiter parce que tam c'est bien boo nga def sa ay fête def sa ay recettes yu baax mais après boo ci naree jëlee ay jàngoro tamit soxlawul waaw nañuy modérer di li di limiter euh, tomate bu bëri bi di wàññi bouillon industriel yi di wàññi dëwlin bu bëri bi waaw utiliser ay huile végétale yoo xamante ne euh, comme ay huile d'olive huile pressée à froid yoo xamante ne moo gën a baax ci suñu wér gu yaram waaw kay maa ngi wax rek mburu ma laa jël pain de mie bi daal di koy tàcc tàccal dër ko jël sama fromage euh, crème daal di ko ci lal waaw koy jël sa fromage daal di ko ciy tartiner li deson ci somo bi nga def ko ci def ci tuuti salade daal di koy rouler waaw toujours même presque même ingrédients yi rek laay utiliser souvent su may defar samay amuse-bouche waaw comme nee naa la mooy égé table yi waaw euh, mam mam mamiche wala ma mamiche mam mamiche waaw mamiche Fall ca yooyu yooyu tur mami nga tudd rek waaye mi ne ma nga koy mamiche moom mais Fall nga sant moo tax mënuma la wax dara waaw moom nee na naa ñibbisi mais maa ngi ci de nee naa nee naa la euh, mamiche gars yi dañuy jël seen seen ndab yi dugal ko suuf table yi ay feet ba feet lay génn ay korité ay tabaski sama ñoom yaay dañuy denc seen ndab yi génne leen ndab yi def ci amis bouche yi waaw koñ li la boo xam ne maa koy mixel sam bopp fromage laa ci def euh, def naa ci gruyère def feta def persil def huile d'olive def xorom def poobar ay persillé oignon granulé daal di def tuuti kaneel ak tuuti raisin Euh, ci Cyril Lignac laa ko gisee euh, assaisonnement bi mu def def ci cannelle ci viande hachée bi mais c'est très très bon waaw Cyril Lignac pour connaisseurs yi yéen ngi koy xam ma nga ma nga boori France waaw chef bu mag ba waaw pâtisserie ci pâtisserie lay dox sax waaye baax euh, am na connaissance tam ci cuisine mooy Cyril borom meilleur pâtissier de France Cyril Lignac un coucou de la part de Alphie Cuisine une fanatique fan suiveur Euh, de li Lignac voilà su fekkee am naa fi ay suiveurs yu xam Cyril tamit ngeen waxal ma ko sama yóbbante waaw man moom laay roy ok moom bokk na ci sama ay euh, sama ay mentor ñi ñi ma gën a poussé ci def cuisine ok ñoom Jimmy Oliver ñoom euh, Gordon Ramsay ok sama star man ñoo ñooy sama star man ok ñoom Philippe Etchebest <laughs> Pierre Hermé man de ñooñu laay seetaan man man daal ñooñu ñooñu laay xool man ok léegi ketchup mayonnaise déedéet ketchup ak euh, sauce euh, sauce hamburger nga daal di def sa tuuti salade salade bi sax euh, mi ngi ñëw recueillir sama steak yu tàng yi mais grawul ci décoration bi na am vert am couleur bi génn waaw koy tegal sa ay dok dok yu baax sax yu saf fromage waaw dogu dogu yu féete parce que démb Cyril euh, tous en cuisine moom it defar na ay euh, burger burger de Noël def ci fois gras c'est très très bon dinañu ñëwaat euh, avant feetu avant feet yi di jeex ci yeneen amuse-bouche yoo xamante ni dinañ defar ay burger au fois gras pain burger yi nag maa ko defaral sama bopp dinaa leen jox recette bi ok sama gars yi jaajëfal naa leen de kontaan naa ci yéen Emma Touré Mariam Ly ak Khadija Khadija kamara Euh, Latifa Konaté wax naa ko ak Love Cook waaw Maam Awa Dieng ak euh, Titi voilà chers abonnés mi ngook euh, samoussa yi génn na hyper croustillant na ñu sunu ay pain de mie def ci somo ak fromage na ñu sunu ay mini burger euh, de Noël voilà am sunu ay amuse-bouche yoo xamante ne mën na leen jox ay idée daal di égayer seen ay table euh, ngeen defa mu baax daal sama gars yi waaw koy jaajëfal naa leen na ñu yokk abonnement yi partager leen page bi waaw koy nag wax leen seen gars yi nañu abonné bu ko defee ñuy like di bàyyi seen ay commentaires noonu rek laa ko bëggee sama gars yi waaw koy très rendez-vous très bientôt pour une toute nouvelle recette euh, donc amusons les bouches avec euh, version Alphie Cuisine mi ngoog tey daal yi ñoo fi wàcce jàkkal naa ko sama waa team yëpp fépp fu ngeen nekk ci Europe ci Amérique Afrique euh, ba ci asi euh, yak Alphie Cuisine yàkkal na leen ko donc on se donne très rendez-vous très bientôt et d'ici là je vous souhaite une très très bonne dégustation pour ces amuse-bouches version Alphie Cuisine à très bientôt sama gars yi jaajëfal naa leen merci beaucoup